am na lu ñu daan tuddee as saxra koo xam ne ci diine jëga bokk am na boo xam ne da nga koy dem ca tool kilifa ga ne moom ca ngay doo dem ci sa tool lu ñu daan al osor daal leen ko laaj mooy loo bay lu ne fukkeel ba da nga leen koy jox am ay dara def ci ferey église bi te fekk na ci seen intérêt bopp am daal yoo xam ne moom dañ laa wax ne kenn obligé wu la ci waaye yow lay neex rek nga joxe ko boo ko seetee kon juróomi yëf la yoo xam ne yépp ci côté alal la ñu noté woon ko nit ñi nit ñi di leen ko jox sonnoon ci lool te jàppoon ne ngërëmul yàlla lañ ciy am léegi nag yooyu yooyu ñu amoon yépp nun am na ci suñu biir léegi xoolal ñun ci suñu biir not gi ñu not nit ñi ci wàllu alal ci turu diine léegi xoolal toori alal ba ñu leen di bayloo xoolal asaka yi ñu leen di laaj ku jox génne asaka ku nekk foofu nga koy war a joxe xoolal sas yi ñu leen di sas xoolal addiya yi ñuy joxe xoolal daayira y ñuy def xoolal xew-xew yi diine yi ñuy def xoolal tabaski ki ñu joxe lépp jàpp ne turu diine la te fekk na bu fekkonte ne yaa ngi koy jox ki nga xam ne ci turu diine la koy def bu boobaa dana doon turu diine mais bu fekkente ne ci intérêt boppam la koy def loola boobaa kooka ngay jaamu waaye jaamu sa borom tabaraka wa taala lii lépp di ci ay millions di ci dem par at ay millions wala ay milliards di ci par at di génn ci jullit ñi jullit ñi ba def santaane bi yàlla taxawal benn école boo xam ne ka cay jàngale ak gone yi cay jàng dañ leen di fay ñuy am lu ñu lekk gisoo ko fenn fi mu ne ci turu l'islam amul benn jàkka boo xam ne dañ koy soxla rek ñu daal koy mën a ñëw financé ko ci turu l'islam gisoo ko fenn amul benn hôpital boo xam ne dañ ko ubbi ci turu l'islam def fay garab def fa lépp ko feebar di jullit soo fa demee ñu faj la gisoo ko fenn te nag alal yooyu yépp di génn fan la jëm fan la jëm kon kon li muy mooy jëmul fi ko yàlla soxla woon te yàlla dane woon kuy joxe defal ma ko fi ma soxla masalul lasina yunfiquuna amwaalahum fi sabilillahi la yàlla waxoon fi sabilillah yàlla luy soxlaam mooy loolu yàlla luy soxlaam mooy ñu bëgg a xam seen diine nañ ko xam ñi ñàkk nañu am ñi wap nañu mën faju nu ngeen am kàttan ci mën a jihaat ak seenum noonu lii moo doon soxla yàlla yi ndax faju la ci benn faju ci ndax julli ñi dañ ko amul am nañ ko ay millions la ñuy génn di ko dépenser ci leneen kon li tekki ndekki kon pas pas bu baaxul kon mu wallal li lépp kon ndekit li lii ñu jot a tudd moom lay jur ci texee dig àdduna texee gi moom ginu pas-pas bu baaxul bi yóbbee kenn ku ne mën nga koo xamal sa bopp kenn ku ne li ngay dund ci ay jafe-jafe ak li ngay dund ci ay naqar kenn ku ne xam fi mu ne li gën a nekk problème mooy fi ne yar sa doom yarub l'islam fi ne jullit bu nekk fi ne posé na la problème fi nekk ndax jan daara nga ko yóbbu daara ja soo ko fa yóbboo kee na mën naa jàngale waaye amuti moyen lu muy def mooy da ko yalwaan loo mu nekk ci àll muy def mooy ay jikko yu ñaaw lay jàng ci xale yi muy dajal ci àll bi du fa xam dara dafay gën a yàqu léegi noo koy def léegi waaw kenn koo xam ne dañ koo teg fi barab xam ne dana mën a dundal xale ya man di am lu mu jàpp moom di jàngal xale njàngum l'islam mu leer loolu l'islam moo waroon a génn ay alal ñu koy financé nga xam ne ku am doom ku ne du la jaaxal su ko defee boobaa loolu mën a faju a faju bu ne ñooñu ñuy jox alali diine yooyu alal yooyu ci turu diine te loolu danañ yegg yegg ci kanam ci ne kenn ci ñoom ñoom ñooñu sax d'accorduñ ci ne lool war naa mën a nekk bu fekkoonte ne ñoom kenn ku ci ne wut nga benn daara bu la topp boo xam ne xale buñ la jox wala ñay askanoo ci yow xale bu ñu am bu mat a bu nekk nga dem jëli ko dugal ko ci biir daara jooju boole ko fa ak ñu koy jàngal alquran jàngal ko lislaam ba mu mat kooku boobaa luñ la jox ci alal yow yeeyoo ko ndax yaa ngi koy delloo fi waaye bu fekkente nag yow doo jël doomi kenn doo toppatoo mbirum kenn sa affaire bopp dong ngay toppatoo luñ la jox oto bu rafet nga koy jënde wala étage bu rafet nga koy defare pour ñooñu gën laa mën a gëm ndax mi nit ñi ko matérialiser léegi bala ñoo gëm nit ki du duñ ko seet ci yàlla gi waxoon ne dee leen ko natte mais koy natte léegi a rafet kër gën laa jàpp goom kooku la nit ñi jàpp ne ko kilifa gu mag la goo xam ne kooku lu mu wax rek des na ko def nga xam ne nit ñi nattukaay boobu la ñuy natt léegi li ko waral mooy dañoo matérialiser yëf yi bu fekkoon ne nattukaayu ragal yàlla jël du ñu mel noonu texee di xam ne moom la ñu jural ci àdduna mooy loolu léegi nag nañu seet bu fekkente ne continué nañ ci pas-pas bu yàqu bii lim lu nar a jural àllaaxira déglu yàlla loola doogu moom moo ko mën a xibaar ndax kenn demu fa yàlla nee na première li ma leen di njëkk a xamal mooy lu ngeen ma fi bokkaaleel ak lu man man mën a koy weddi wa yawmal qiyamati yakfuruna bi shirkikum soo ko weddee nag wala yu nabbi uka mislu xabir yàlla nee la man xibaar bi ma lay jox kenn mënu laa jox xibaar bu ko gën a dëgër parce que yowmal xiyam kenn defa demagu fa delsi man yàlla maa xam la fa nekk lépp maa xam na muy demee maa la xibaar ne koo fi naw ba bokkaale ko moom ba tax nga di ko jox say alal ba tax laa teelaa jaamu yàlla yow ma xiyam bu ngeen dekkee danaa la man xaw ma la woon da koy weddi waaw ñaareel ba mu ne bokkaale googu bakkaar la boo xam ne ku ko faatuwaale yàlla du la ko jégal bakkaaru bokkaale ak nit fab ci cër yàlla yi dara ci cër yi ma doon lim nga jox ko ci kenn kudul yàlla boo ko faatu yàlla du la ko jégal inna allaha la yaxfiru an yusraka bihi wa yaxfiru ma duna salika liman yasha bakkaar bu ne nit mën na koo faatuwaale tuubu ko bu demee bu soobee yàlla mu jégal ko waaye bakkaaru bokkaale moom nee na du ko jégal bokk na ca day sippi ay jëf loo jëfoon lu mu bari bari bari bari ak lu mu rëy rëy rëy rëy saa boo dugalee bokkaale jox kenn cër boo xam ne ci cëri yàlla yi la benn la nga jëfoon lépp day yàqu ndax xanaa jëf mënta rafet ba toll jëfi yonent yi te yonent yépp yàlla nee na salika la yahdi bihi man yashaa'u min ibadihi lumière bi ma leen joxoon mooy lumière yàlla bi nga xam ne ci lay gindi ku ma sob waaye nag walaw asrako buñ bokkaale woon ñoom yonent yépp la habita anhum ma kaanu ya'malun li ñu jëfoon ci ay tuya ba lépp dama koy nii man yàlla tàbbal leen sawar nga jël sayyidina muhammad sallallahu alayhi wasallam même moom li muy rëy rëy ak li muy rëy rëy liggéey yàlla ne ko bis boo bokkaale woon li nga jëf lépp dama koy nii ولقد أوهي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أسركت ليحبطن عملك ولتكونن من القاسرين waxoon nañ la ko nii ñu ko waxee ñi la jiitu woon ne ku fi bokkaale ak koo mën a doon saa boo dugalee bokkaale ci sa mbir sa jëf yépp dafay niile dafay sippiku te da ngay perte bokk na ca bokkaale boobu day tax ajjana araam borom ku ko faatu waale ajjana daf lay araam kon nit ki na vérifier boppam ba balaa faatu bokkaale bu mu nekk ci moom loolu ibrahima dénkoon mbokkam ya ne leen fala tamutunna illa wa antum muslimun ngalaway na ngeen fexe ba bu ngeen di faatu na seen xol set wecc wecc wecc bu leen bokkaale ak yàlla dara ndax dans la bo xamné kenn mënu ci amu ci innahu man yushrik billahi faqad harrama allahu alayhi aljanna wa ma'wahu an nar wa ma lizalimin min ansar kep ko xamné ne ak yàlla ba faatu ci lolu àjjana mom def la aram mom amul sax mom ram amul tinu amul dara te nee sa fatu kay moy doon sawara bo xamné fa ngay dëkk faw yàlla nak netlu nak xoloo ba nga xamné moy xew digënté ñi ñu doon bokkaale ak ñi leen doon bokkaale yow xiyam yàlla ne ولو يرى الذين ظلموا إش يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار يعلن بس بوغي سيغا ييغا خامن دانيو توغنون bis bu ñu demee ba jàkkaarloo kàttanug yàlla gi xam ne yàlla dong nga am kàttan nag ñi ñu doon dénk kàttan yoruñ ci dara annal quwwata lillahi jamia nee na keroog la gaa yi ñu doon topp di denc ñi leen doon topp istabarra allasina tubiu min allasina tabaau lu ko waral mooy war a awla sab dañoo gis mbugal mi mbugal maa ngi ci sa kanam intérêt yi leen boole woon ci àdduna yépp itam dafa dagg wa bi bihimul asbab gaa ya doon toppee ne ay ni ngeen daje ci noonu tey day bu nu mayoon bañ dellu àdduna day nii génn ci tey noonu la ñuy génn ci yéen tey bu keroogee loolee nag bala nga caa yegg kon koo xam ne tegu la ci yoonu yàlla koo xam ne daf lay bokkaale loo nga deñoon ci moom léegi bala ngaa dem foofu di jéem a ci moom te c'est trop tard duutu a nekk loolu moo gënoon yàlla ne wa barasu lillahi jami'an gaa yi ñu doon bokkaale ak yi ñu doon naw yépp bis bu ñu ne tëll ci kanamu yàlla ñoom ñëpp taxaw fa qaala du'afaa'u lillazina stakbaru ah gaa yi mbir maa ngi nii de inna kunna lakum taba'an làqu ci sa ah, yow day man ci yow laa fa hal antum mughnuuna anna min asabillahi min shay ndax mbugalum yàlla mi tey man ngeen ci benn intervention gaañe ne leen law hadaana allahu la hadaynaakum bu nu yàlla gindi woon ban gindiku yu nit yéen ngeen gindiku sawaun alayna ajasina am sabarna maalana min mahis tey daal ñàkk jom ak saalit ak dara amu fi njariñ baye boo jéem muñ rek rawukaay amul waaw loolu mooy doon tontu loola lañ leen di tontu booba borom bi net liwaat ko feneen ne wa is yatahaajjoona fi naar keroog ba ñuy dàggee ante di xuloo ca sawara ñoom ñoo ñu doon toppante fa yaqulu duafaau lillazina stakbaru ah inna kunna lakum tabaan yéen ñi yen doon topp fa hal antum muqnuuna anna nasiban min annaar sawara sax xam nañ ne ñun ñëpp noo ngi ci mënu leen cee fekk waaye xanaa am na lu ngeen ci war a mën a gàddu bu fekkente ne noonu cent degré moo nu war lakk ngeen gàddu lu ci boog 10 pour cent bokk te li ko nu ko ñooñu ne leen ah lu ñu koy defee inna kullun fiha ñun ñëpp noo ngi ci biir sawara nun ñëpp noo ci biir sawara nu wala ci gàddule yaa ngi lakk cent maa ngi lakk cent kooku mënu war a cee gàddul dara li rek lay na inna allaha qad hakama bayna al ibad yàlla àtt na ba pare yàlla nee na mbir yi foofu lay mujj te yàlla moo ñu ko nettalee nii nettaliwaat ko ne walaw tara isi salimuna mawqufuuna inda rabbihim yarjiu baaduhum ila baadin alqawl يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكروا الليل والنهار استأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أمدادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون yàlla ne kaay ma nettali la gaaña bis buñ taxawee rek ba jub sawara commencé xuloo ñu del dool leen ay wax yarjoo baaduhum ila baadin gaa ñu néewaloon doole ñu doon toppee yaakaar a jàpp ne mën si leen a jàllale ñoom ñooy njëkk a wax ne leen waaye yéen ñii day lawla antum lakunna mu'minin yéen ñii de bul woon ak nu xam yàlla waaye yéen a doon nabbu melokaani yàlla yëpp dinu wan seen bopp wanu li doon wan yàlla seen bopp ngeen doon wan gaa ñu tontu leen ne leen anahnu sadadnakum anil huda ndax nun noo doxoon seen digganteeg alquran alquran a nga fa woon noo doxoon seen digganteeg sunna sunna nga fa woon yéen kay da doon ay saay-saay nu nekk ci lu leen neex ngeen nu bokk ay intérêt bokk juboo ñu bokk ay entre di ca dund waaye kenn nekkul woon sa morom dañoo bokkoon ay intérêt rek parce que fi mu ne am na ñoo xam ne naxante naxante nekku ci kañu jël di ko jox seeni alal am na it foo xam ne côté yoo xam ne moom lañ bëgg mu di leen fa féete bu ñu amee problème wala bu ñu amee jafe-jafe mu ñëw lijjanti ca def ci intervention nga xam ne kon affaire bi naxante la kon moo tax gaa leen déet nun na woon de alxuraan nga fa woon sunna nga fa woon ngeen bàyyi fa d'accord ci li lay woo nga di topp nga di fajal samay soxla ma di la fajal say soxla قال الذين استضعفوا للذين استكبروا غاني لا ديت ديمول نون بل مكروا الليل والنهار يين دون فخال غوديك بيتك مير مونين نين دينكو واخ لوني نين دا نين كو غنت وارات مونين نين واخ نكو تير بونين نين ام نين كو سي يالا با جاب كو گم كو جاب نين نين ام تير سي يالا نون نين دون نخي يالا نك نك سوني واخه با نوبي نك وجعلنا الاغلال في اعناق الذين كفروا ملائكه ييب ني لن جاب لين تينا نيوم نيار ييب حال يجيسون الا ما كانوا يعملون كين دولين فاي لو موي دين ديفون رك منات لو ان كو ني يوم تقلب وجوههم في النار yaquluuna yaa laytanaa ataana allaha wa ataana rasula dee rek keroog ba waa sawara yi doon bokkaale bu ñu duggee sawara bañ leen di naq ci biir sawara wi di wëlbati seen kanam yi ci biir sawara ñu naan yaa laytanaa ataana allaha wa ataana rasula kon ndekete adduna loo fi topp lu dul yàlla ak yonente bi da nga ko réccu gis nga waa sawara teguñ ci ne ak keneen aka neexoon nu toppoon yàlla topp yonente bi sallallahu alayhi wasallam rabbana ñu ne leen lu ngeen toppoon ñu ne inna ataana saadatana sunuy sangalan toppoon wa kubara ana ak sunu kilifa yu rëy ya daraja fa adalloona sabila ñooña sànk ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كثيرا سين خول داي تانغ باج نان يالا غاني نو سانكون بونو جوخي بن نغا لين جوخ تيمير نيوم ناخ نيون نيون سانكون وا يالا دي نيت لبيس بابا تاي ناي بيس لا بو خامني يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سليم واسلفت الجنه للمتقين وبرست الجحيم للقاوين وقيل لهم اين ما كنتم تعبدون من دون الله هل ينصرونكم او ينتصرون فكبكبوا فيها هم والقاوون وجنود إبليس أجمعون قالوا وهم فيها يقتسمون تالله إن كنا لفي دلال مبين إذ صويكم برب العالمين وما أضلنا إلا المجرمون فما لنا من سافهين ولا صديق عميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين يعني إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين yàlla ne la bisa ngi ñëw seen kanam boo xam ne alal du jariñ doom du jariñ lu mooy ku andil yàlla xol bu mucc ci bokkale nee na bu keroogee àjjana danañ ko waajal ba jekk tegal ko fa ñu ragal yàlla sawara danañ ko waajal ba mu jekk tegal ko fa ñi nga xam ne dañoo bewoon nanguwuñu woon a jaar santaane yàlla nee na suñuy bëgg a dugg sawara nag malaayka laaj leen waaw yéen ayna ma kuntum taabudoona min dunillah ana li ngeen daan jaamu di ko booleeg yàlla xanaa loolu koy war naa mën a jéem dara hal yansurunakum aw yantasiruun fa ñoom ñëpp ñu bokk dugal leen ci biir nee su ko defee ñuy giñ nag naan tallahi in kunna la fi dalal mubin giñ nañ ci yàlla ne nekkee noonu ci cànkute rek lan nekkoon waa sawara ñooy giñ di wax lool ñi tallaahi in kunna la fi dalal mubin lan moo doon dalal mubin is nu sawwikum bi rabbil alamin dañ leen a yamale woon ak yàlla lu yàlla santaane lu nekk ñu def seen santaane bàyyi santaane bi yàlla wala lu ñuy defal yàlla lu ne defal leen ko doog ko defal yàlla fi ne boo ñu nee yàlla kese da ñu léegi naan yàlla kese dafa woo bu soobee yàlla kese wala bu ma yàlla dimbale il faut balaa seen xelat dal ñu tekki ne yàlla ak nangam moom la yàlla ne wa isa sukira allahu waxdahu isma asat qulubu lasina laa yuminuuna bil axira am na ñoo xam ne loo wax wax wax alquran nee na xadis nee na te tuddegoo kenn seen xol day tàng lool waa ji daal waxtaanam bi dëgg dëgg daal moom neexul waaye wa isa sukira lasina min dunihi saa boo ca dugalee keneen nag isa hum yastabsiroon fartasoye joll nag waxtaan waa ngi doog a neex waa jaa ngi doog a dikk kooku yàlla nee na kooku moom mooy ki nga ne war na maa a encaissé man képp te boolewu ci keneen yàlla moo xam jaamam yi yàlla na gaa ñi ñooy wax ne is nu sawwikum bi rabbil alamin dañ leen a yamale woon ak borom bi ndefi te nag wa ma adallana illa al mujrimun saay saay yi doon rëy rëy ci kaw ñooñu dong ñoonu sànq tey jii amunu kenn ku nu amunu benn xarit bu nu mën a jàppale waaye bu nu dellu woon adduna day danañ gëm yàlla comme nun nag comme noonu fii ci adduna dun demagul bala ñu naan falaw an lanaa karra fa nakuuna minal mu'minin nan nekk minal mu'minina <laughs> ne moo gën bëgg ba delu naan falaw anal na karra bu ma delloon fa nag kuuna minal mu'minin kon danaa bokk ci ñi gëm yàlla te boole wuñ koog dara nun am nañ chance demagul gars yi nañ nekk minal mu'minin mooy li nga xam ne moo gën a wóor hmm. kon texee di googu nag ngeen xam ne moom lay jur yowmal xiyam gis nga ni ko yàlla nettali résultat bi yépp nag te nag yowmal xiyam moom xibaaram kenn mënu koo amee fenn nag fu may ci borom bi tabaraka wa taala te gis nga nii lanu nettalee mujug ñi nga xam ne dañ ko doon bokkaale musiba mi muy jur ci àdduna itam gisal nañ ko sun bopp léegi kay ci mujj nag lan lañ war a def muy solution boo xam ne moo nuy génne nag ci pas-pas defe naa ñun ñëpp jàpp nañ ne bi ñu seetloo pas-pas bu yàqu li muy jur ñun ñëpp reconnaître nañ ne ci pas-pas yu wérul yooyu moom la ñuy dund moo waral not gi nu suñuy noonu not moo waral ñàkk gi ñu ñàkk moo waral néew gi ñu néew doole moo waral ñuy yàq l'islam yëpp mën a am buntu mën a dugg ci biir man ko yàq kon ñun ñëpp d'accord nañ ne pas-pas yi moo wérul kon nan la ñuy def nag ba mën a wéralaat pas-pas yooyu